asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu leen nuyu baax baax leen ziar di leen wax ni da leen a jàmm suñu chaîne Dakar People te ñu ngi fi géej waaye si koo xamante ni kenn du ko présenté di yëngu ci wàllum faj wàllum seet wàllum ñaan mu kan muy Cheikh Tidiane Niass dofu maam Khalifa Niass Cheikh Tidiane ñu lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog askan bi auzu billahi samil alim min sharri shaytaani rajim bismillahi rahmaani wasalaatu wasalaamu ala asrafi anbiyaai wa mursalin sayyidil wujuud wa alami safut muhammad ibn abdullahi rasulillah wa tabiam bi ihsan ila yawmi din mbokki julli di mbokki taalibe yi ñi safoo di seetaan internet waaye it di di ko jaare ci site bi nga xam ne mooy Dakar People ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu bépp abonné bu fa nekk ak ko koy siiw ñu lay fay baax baax Cheikh Tidiane mais ba ñoo tàmbali ci waxtaan bi rek ñu wax ba xam si lan nga nekkoon nga dina laa gis sa tamit ak euh, nit ñi itam ñu lay laaj tout le jamono rek ñu tënk ñëpp mu ñu tënkoon rek ndax it euh, jamono dafa toll foo xam ne nii daanaka génn bu bari bi sax bu yàggee da ngay da ngay da ngay soof nit ñi. Hmm. loolu kese la woon te teg nekkoon ci jaamu yàlla yeeg kee ci aju nekkoon ci tool yeeg mbokki bi yi ak ci ndigalu xalifa bi di maam nekkoon ci toolam hmm. it. Hmm. léegi bu ñu waxtaan ak itam ci ndigalu xalifa bi temps yi dañ ko convoqué woon ci wàllum ubbi ci wàllum ubbeeku jumaa yi jumaa yi itam la moo waral lool noonu yéen yéen lool noonu ci boobu ban gis-gis ngeen ci am. waaw loolu on se retourne seen ñu ngi leen ci félicité di ci félicité umma l'islam bi yëpp ndax ñëpp gis nañ ni demee woon du lenn lu dul li nga xam ni moom lañ mënutoon a dékku mooy réew mu toll ni Sénégal. alaaji Maalik tëdd fi Serigne Touba tëdd fi Baye Niass ñu baax ñu tudd ñëpp tëdd fii Sénégal pare ñu toll ci weer un mois boo xam ne dañoo tëj jumaa yëpp jumaa yu mag yëpp hmm. ndax la ndax benn feebar boo xam ne feebar boo xam ne jaamu yàlla donc la hmm. ndax ni ñu yàlla bindee noonu la bindee feebar bi hmm. pourquoi dawuñu yàlla ñuy daw feebar bi loolu kese la loolu kese la woon imaam Mouhamed Ibrahim di suñ papa fépp ne day julli ji. Uh-huh. duñ ne day julli ji mu julli ji ñu convoqué ko. Uh-huh. ñu ko convoqué xalifa bi ne mm, Mouhamed njabootam la kenn du ko uh-huh. convoqué mu toog. mu jug ànd ak moom ñun ñeseen yëpp ñu dem. ba yàlla may ñu ndam gannaaw loolu it président xam ne. ñeseen du kër gu ndaw te kër ak la. kër ak ñaanukaay yàlla la ndax euh, bokk na ci euh, symbole lew na ñeseen mooy lépp lu ñu wax yàlla def ko. mooy xoslet El Hadj Abdoulaye Niass bi yëpp. kon loolu xam naa jot na ko. bi mu ko hmm. jotee jëfee na ko parce que immédiatement ci la génn joxe décret ne nañ bàyyi jumaa yi nañ def nangam waaye loolu du xeexal ñeseen du dara xeexal hmm. diine rek la. Hmm. ndax yaayu li si de lisaat mi ne jumaa la yàlla wax. jullit àjjuma moom farata la. amul kenn ku mën a taxaw du farata. farata la ci ponk yi julli juróomi. ci lañ tànn benn bis muy àjjuma ñu nañ dem muy suñ suñ ensemble. ñu dem daje fa ak kon loolu waruñu woon a nangu kenn duñu ko yàqal. du président. du keneen ku président. Hmm. ragal yàlla nag moo gën ragal doomu aadama loolu kese moo tax xalifa tëpp na dinañ may ñu ci mais est que loolu tamit du yokk du yokk kaay yi tamit a yokk. parce daal. sax li ci xew dafa bari hmm. du du ko xam lépp daal wax lépp du du du du dañuy font daal daal. parce wax jooju dafa mel ni yow ay temps waxoon fi am leen daal lu fi xew. waaw mooy wala yàgg na trop nag. temps yi passé rek parce que hmm. euh, mbas bu ñëwee cim réew li koy yokk bari mhm. parce que dajee yi nga xam ne politique yi ñu ngi koy def. Mhm. ba tey yi leen intéresse ñu ngi koy def. Mhm. doomi politiciens yi ak doomi ñu am ñi. ak doomi ñi nga xam ne ni seen bàyyi ay milliardaires la. ci biir couvre-feu bi ñu ngi leen joxoon ñu ngi leen jox ay ay. ñuy daw ñu tëj sëriñ si tëj ñi nga xam ne nii ñooy waxkati dëgg yi kenn du génn kenn du wax pourquoi loolu est que feebar bu amee yemaleel ñëpp bàyyil ñëpp ndax yow mi yemalewul ñëpp bu la yàlla defoon ni nga def ñeneen ñi doo mais yàlla nag ku wax dégg na la mais du ñëpp du ñëpp lay déglu ah. kon nag da ngay respecté ñi nga xam ne bokk nañ ci ñi yàlla di déglu te mooy ñi nga xam ne ñu baax ñi la ah. ñun nag xëy na mën nañ see bañ a bokk ndax nit kese lañ duñ dara dëgg la hmm. dëgg la mais lan moo waral li fi xew temps yi fii fii nii suñu réew mooy maanaam euh, jëf ci kii jëf yu yi daal la moo waral lool noonu. waaw mooy mooy mooy jikko yu bon rek ak xol bu bon parce que pourquoi pas ndax suñu mënta nekk millionnaire mënta nekk milliardaire première soxor fa la nekk fa la danga nga daan ànd ak moom xëy gis ko mu mu développé tax am na ñoo xam ne amaana xamuñ sax yow ci looy yëngu li ñu gis mooy yaa ngi xëy di dem di ñëw di wàcc boo xëyee nekk milliardaire wala milliardaire ñu ne jaaykatu nangam laaj kuy def lu bon laaj maanaam añaan googu moo dem ba nga xam ne nit ki bu fekkee dem nga ba ba mu nekk ci yow muy góor nga sëy seeg sa soxna ngeen am ci doom doom bi du mën a a def lu dul añaan loolu nag mooy dem di law di law ba nga xam ne kañaan gi day bëri loolu li koy dindi lenn dong la mooy tur hmm. dellu suñu borom ku am dërëm nga yéene ko ko ku am million nga yéene ko li kese a am jàmm mais nit ki lim ko kooku yow doo ma am jàmm añaan moom safara suy lakk xol rek waaw boo tebee dugg ci da nga tebaat génn ci hmm. ndax mosoo gis kuy añaanee nit di avancé da ngay añaanee nit kay di gën a arrière da ngay añaanee di gën a avancé rek balaa caag nga nangul a dogal ci moom rek dëgg gis mais am na benn jour waxoon wo ne woon dina am benn kilifa diine bu génn àdduna hmm. loolu su ma jiw maa koy fàttaliku hmm. te gis nañu ndeysaan euh, Pape Malick Sy mu hmm. génn àdduna ba ki démb yàggul. Hmm. voilà la nga ci wax. ay sax laa waxoon waxuma benn ay. ay ndax euh, boobu ñu ngi. ñu ngi hmm. dugg ci atu quatorze quarante et waaw loo euh, boo koy xayma bu fekkee adat la lay jox. nga koy xayma. dina la jox ay ponkal maanaam ay keno. keno yooyu nag kenn mën naa nekk si ñii mën naa nekk ci ñëwagul. waaye comme lu rek. nañ ñaan yàlla daal yàlla yemale ko fi ndax métti na hmm. ndax Pape kenn la woon ci diine ji hmm. kenn la woon ci tarixa cheikh bi kenn la woon ci doomu Sëriñ Babacar Sy mu nekk koo xam ne nii ku baax la woon ku rassemble la woon hmm. diggante murit ak tijaan amul woon xaaj amul woon seen kon kooku bu demee it métti na ci ñun trop métti na ci képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah sama rasulullah ñaan yàlla ñu yàlla taas ci barkeem yàlla ñu yàlla yokku leeram taas ci barkeem yaa rabbi fa mu na ko ne mooy way juram Mm-hmm. allahumma amiin mais yow ni ngay gisee noonu dafa am leen loo xamante ni moo la koy wan wala dafa am ay rap yoo xamante dafa nekk ci yow. non mu lay wan mu lay wan ay bagages daa mm-hmm. gis ku lay seetal sa da ngaa yor sa ñëpp àdduna ñëpp am rab. dëgg la moo xamal la ko tey ji mm-hmm. parce que li tax ñëpp am rab mooy euh, doomu aadama bu nekk. am nga àndaale. am nga lu ñuy mooy rawxaan. sa rawxaan peut-être am na ñoo xam ne baax nañ di ko gis. mu leen wan am na ñoo xam ne gisuñ ko loolu dafay am. waaye dafa am loo xam ne zalika fadlaahi yutiihi man yashaa maanaam gëneelu yàlla la hmm. yàlla mooy xool ñaar ñu bokk famille hmm. yëkkati ci ku ko neex di ko xamal loo xam ne du ko xamal ñeneen ñi hmm. tekkiwul wala nàngam loolu kese am na loo xam ne sax duñ xam daal ñun yàlla moo ñu koy xamal ci xam rek ñu wax mais du ñuy préciser di wax lu ñëwagul parce que yàlla rek moo sañ wax lu moo moo sañ dogal war a dogal suba dara retour na ko defar ko lu ko neex faalu li maa yuri dara safu ko ku dara saful nag jiiru ko ci ndogalam waru moo waral parfois dañuy xam lu bari wala ñuy gis lu bari sax waaye duñ duñ ñemee mm, wax ndax mën ngaa wax tey te réewul wax nga dëgg waaye nag dëgg ak yàlla gi a la mm. dëgg la am na solo ñu jublu ci wàllum seet gi mm. euh, Cheikh Tidiane seet ngay seetee da ngay seet ci petaaw wala da ngay seet ci ci ci si suuf ak wala si ndox waaw loolu moom yaakaar naa ndaa ndaa su yàgg ma ko loolu moom mën nañ cee waxaat ak xam naa xam nañ ko moom <laughs> ramli. Ah. dañu def seet li ñuy wax ramli. dañuy def ah, calcul dañuy def euh, aussi tamit seet ci ndox. Mm-hmm. mais seet ci pétaaw moom duma koy def. waaw parce que samay maam bëgguñ ko woon. bëgguñu ko dëgg la waaw waxuma tekkiwul nag Sénégal réew mu naq day mucc la. waaw ah. waxuma nag baaxul nag. Mm-hmm. waaw waaye rafetlu wu ma ko daal man ndax samay maam rafetlu wuñ ko woon. Mm-hmm. loolu nag ci laa am droit ci laa sañ a yem. parce que kenn mënul nangam moom tooñ na waaye man mënuma ko daal moom. wax ju wax ju wax ju yemamaay la waaye seet moom ramli moom. yàlla moo ko wàcceel boppam seet boobu. Mm-hmm. Jibril moo ko jàngal yontu yàlla Souleymane mi ngi ko jàngalee ci côté Tefes. Mm-hmm. mi ngi ko jàngalee ba pare Souleymane ko. Mm-hmm. Jibril na ma ba xam ndax Jibril mi ngi ci kaw suuf jamono jii. Souleymane bi mu ko mokkalee xool ko ramle ko ne ko jamono ji may wax yow ma jege la jamono ji. mi ngi ma jege lool Jibril na ko kon mën nga seet bi. man maay Jibril yàlla moo ma yebal pour ma jàngale seet bi ndax la ndax ëllëg yaa war a jiite àdduna. Souleymane mooy seul yonent boo xam ne nii. moo jiite woon mbooleem lu yor bakkan rek. moo la woon muy muy gaynde muus nangam nangam nangam jinne nangam lépp ci moom lañ tënk woon. kon kooku bu ko yàlla joxee seeti ram li mu wàcce ko ñun xeet Seydina Muhammad kon pour man seet gënta weer loolu. waaye mënoo koo mënoo koo peeg maanaam mënoo ram li mënoo ko def lu danga koo jàng. jamono ji nag li fi xaw ma dama koo xamante fi mu toll nii. ku jóg rek na mën naa seet naa nangam nangam naa kaalaw nangam daal li fi am daal dafa ëpp na ne président daal moo doon jot na mu examen. mu examen daal jot na mu examen jamono ji. sëriñ la doo tee doo jaamu yàlla guddi. Mm. doo doo doo dugg xalwa nit jox la xaalisam nga lekk ko tëdd nelaw. Mm. na sax na sax xel mi ngi faju a ah, man seex ñemewuma. billahi lazi laa ilaaha illa huwa ñemewuma ko dama ko dama ko dama ko def ñemewuma. ndax ah, nii ni may wax ak yow rek. Mm. ku ma jege lool koo xam ne ni génn àdduna. jëfam moo ko fay fekk. dëgg la man danaa dem man xaw ma tey la xaw ma suba. sama jëf moo ko fay fekk. keneen ak keneen noonu. beneen bi mooy. clients yi aussi tamit ma leen def la attention. ci lu hmm. bari. dëgg la. gis nga seex wóolu nga ko. Hmm. demal wóolu ko bàyyi. bu ñëw hmm. lii nag mooy mooy conséquence yi. nag boo ko wóoloo di ko di ko ñaanloo yàlla. ñaan yàlla dafa tekki ay mbir Sénégal daa danaa danaa gisé tuuti nga baal ma ci. temps bi ñaan yàlla bi waaw. nit ñi dañuy jaawale ñaar dañuy jaawale faj ak ñaan yàlla. bokkuñu déedéet. la moo leen la moo seen ñaan yàlla jeexal na wax moomoo li ngay ñaan. yàlla moo moom. faj da dem jàngi médecine traditionnelle. ba ah. xam garab boo ne li muy composé. Ah. bii boo ko booleeg lii bii boo ko booleeg lii bii boo ko booleeg lii. Ah. loolu nga man yemal ci loolu. mais mënoo yem man la indil nga ci nangam ma oo benn bal laa lay bëgg ba nga wax ma turu kenn. Hmm. parce que yaa fa demoon mu ngi fay dem tàgguwoo ma. xoolal keneen c'est simple loolu kese la mais faj ak ak ñaan yàlla bokkul man nag ñaan yàlla dama koo dondu léegi yow la mooy secret parce que damay gis tout le temps voilà am nañ ci tamit ay confirmation yu tam waaw ñaan yàlla dama koo dondu dondu bi mooy alaaj Babacar Niass mooy sama maam mm-hmm. mooy bu maam mm-hmm. moom mm-hmm. moom moom moom jaaga dëgg la Serigne Saliou moom xelxom ñu nekkoon ay xarit mooy xelxom jaaga gi ngay dégg dëgg la euh, maam Khalifa Niass radiyallahu anhu moo ko dénkoon taalibe jinne yi daan ñëw di ziyaara ci si moom góor hmm. jàngal ko man hmm. ma tarbiyu sama waajur góor mu jox ma lépp kon mënu ma yem ak ñi nga xam ne bokkul côté boobu hmm. mais wax naa léegi ne la zalika fadlaa it may shaaw nit mën naa sant puy sax nit mën naa sant puy sax wala beneen sant yàlla jël secret bu bu mu defut ci ñes wala mbàkke si jox ko loolu du ci dara mais day fekk bu la joxee nga pratiquer ko nga yem ca man yem ca la nga xam. Mhm. waaye man naa faj li man naa faj li mën naa faj li mhm. ah mën na ñemewuma man daal li man ci laa yem. Mhm. bëri na lu may tawat ay soxla. damaa jabet ba nangam damaa <coughs> cancer ba sori may la mënuma ci dara. ku sori mënuma ci dara. jabet buñ toll ci dagg duñ ko dagg mënuma. du ma xool baal. cancer bu commencé bees man naa koo faj. bu dem ba sori ba bañ jox la ay bés da ngay nangam ak nangam mënuma ci dara. du ma lekk sa xaalis. loo ci man may laa ñaan yàlla de amul lu mënu sëñ Fallou mu doon wax ne ñaan. balu fetal mën naa daal teel sama kurus ñaan yàlla moo la ko teg ma teggil la ko. waaye dala jox ay suuf fa gi na da ngay wér. Mm-hmm. mënuma dëgg la d'accord am na solo mais ñu waxtaan itam ci wàllum néew kàttan parce que gars yi tamit dañ koy soxla itam néew kàttan boobu noonu. waaw ñett moo koy ñett moo koy waral. Mm-hmm. li ci jiitu stress maanaam xalaat lu bari danay waral góor di gaaw jot boppam maanaam xemam ki ko yàlla boole yaa waral nga gaaw jot sa bopp bi si jiitu benn deuxième bi mooy feebar. maanaam feebar di fooye sa bopp ba ngay nekk ndaw nañ koy moytu. yooyu fooy fooye sa àdduna ba mu jeex ba pare bëgg dabaatal sa mag amul fenn. Hmm. ñetteel bi mooy rab daf koy waral. ñett yi bu mu ci doon ñett yi nag moom. Hmm. loolu mën naa hmm. dama koy faj. bi ànd ndogal yàlla. koy faj ba mu wér képp ñett yi bu mu ci benn laa mënut a faj mooy stress bi ngay xalaat. boobu moom doo ko mën mënuma ko parce que néew ma ci sa <laughs> dëgg la am na solo am na solo Cheikh Tidiane mais mi ñuy waxtaanee itam ci wàllum doom ak ku amul jëkkër ñaar yi tamit gars yi koy bëgg trop. loolu moom du ma ci koo joxaat gars yi rek. ñaar yi moom comme ci bu mu doon ci mm. ñaar yooyu rek boo ñëwee. Mm. bu la neexee jarul nga may jox ñaar dem nañ wax ba déggoo ma defal la ma lay defal bu dee mbir doom la sekkal bu xale juddu lew nañu seen. bees mm. sax boo demee ñu defal la ko. defal la ko ganaar ganaar bu weex lañ koy def gu mos tànneen rek defal la ko jox la yow ak jëkkër di ngeen lekk billaahi wallaahi taala si ngeen ko lekkee weer wi ngeen ko lekk balaa balaa weer wi de wala ba ca topp jigéen ji jëlam jëlam waaw ah. léegi ci wàllu nopp bi nag nopp moom nopp itam laa mu sóor maa ngi ci maa ngi sama moromu sëriñ yi nga xam ne hmm. dañ leen di jox xaalis ñuy lekk tëdd nelaw te mënuñ nopp ma jox leen ko laayee leen biir gis nga nopp lu yomb la faatixa rek boo ko jëleen tey bindu ko yaatal miim ki bëgg féetoo kaw ki ñu bëgg féetoo suuf di u soble xar soble bi ba ba mu kii soble bu weex. Mhm. jël ka gi dugal yóbbu ci géej suul. incha allah dafa o waxooti ka bëgg dana topp kam kam bëgg. miraar lu gaaw la. mais dama dégg ñu naan nopp nopp kiiwul yombul leen waxte. waa ci ñu ko mënul pourquoi. parce que tabi nopp pour nga def ko il faut nga xam tabian doomu aadama. Mhm. il faut nga xam ne yow mii nii di ma noobloo. Mhm. lan moo si tabian ah, maam ndox nga wala ngelaw nga wala suuf nga wala wala nga. il faut ma xam loolu. bu ma xamul si tabiya nag xëy rek hmm. tëb bind nii rek du kii xam ne boo tee wuñ leen neen pour nga jàpp leen bi du yomb du yomb dafa am fooy jaar nopp tubaab hmm. ak nop naar ak nopp nit ku ak hmm. si loolu bokkul si biir nit ku ñuul yi nag dafa ay xeet am ay séeréer ay joola ay pël ay tukuloo ñooñu tamit ci biir xeet yooyu leen yombul dafa am ku ci nekk da war a xam tabi xam. nga mën koo nopp. nga mën koo nopp waaw moo waral nopp nopp mais yàlla xam ne nop la yomb la. yomb la daal yomb la. d' accord ah, nopp lu yomb la accord bu fekkee ne euh, itam bàyyin bi moom mooy wàllu rab. Hmm. Cheikh Tidiane da nga dindi rab. dindi hmm. ah. ko si nit ki mu set wicc. waaw non rab nag kenn mënu koo ci dindi ci nit ba mu set wicc wax naa la ko léegi. accord waaw. ndax euh, yàlla moo ne bindu ma nit ak jinne lu ñu jaamu ma. non rab bu bon boo xamante bu fekkee bu lay yàqal la moom bu lay yàqal kooku dañ koy takk ba mu mat ñu jël yóbbu bee. souvent nag damay dégg sëriñ si bëri rab kenn du ko tuural deret. waaw waxuñ la am. Hmm. jàng wala xamuñ rab kon ñoom ñuy wax loolu ci télé yi yëpp xamuñu rab waaw souvent day am ñuy dalal télé sax ay comédien naan leen wan leen ñu rab xam na yonent bi sallallahu alayhi hmm. naa wan nit yonent bi hmm. pourtant daan na ko gis mais koy wan mooy ay Cheikh Rafal ay hmm. mag ñu baax ña ko toppoon mais du du comédien xam ne dañuy naan ko sëriñ sëriñ wan ñu wan ñu rab maam Xalifa noonu Baay Ñas noonu mel nag rab mën naa di wax ak yow nii sax ci biir émission bi nii rek mu ñëw toog nii sama kaw wallahi azim te doo ko gis. pourtant mi sama kaw toog. ñuy waxtaan. góor souvent day am jabaru ne du ko xam di sëy moom di am ay doomi doom te du xam ne am naa moom doom. Mm-hmm. am man bëri na ay ñu ñëw fii ñoo xam ne nii suñ tiimee seen soxna dañuy tële suñ yeewoo naa ñoom loolu dañu am rab bu saay-saay bu leen koy def. boo xam ne duñ dañuy fiir duñ bëgg mu sëy keneen. Mm. loolu daf ciy am. bu fekkee mënalu la côté boobu dara nag day tee sa nguur maanaam doo mën a satisfaire sa soxna sooy sëyeeg moom tuuti rek dangay gaaw yëg sa bopp gaaw loolu rab daf koy def parce que day bañ sa kattan lépp nga jox ko kee mhm. ba pare moom su la soxlaa rab lu rab bu la soxlaa di muy sëyeeg yow sa mhm. day ñëw dikkee la melokaan gént nga tëdd di nelaw mu dikkee la comme sa soxna wala sa rakk bu la jege te ku la jege la dikkee nag mhm. nga gént sëyeeg moom ba jot sa bopp boo jotee sa bopp sa góor óor bu sëyee ba jot boppam rek day yeew boo jotee sa bopp rek da ngay yeew bu yeewoon nag du day day xool du gis dara fekk rab la soxloon am na ko ba jug dem est-ce nag foofu mën na faa jël ëmb ëmb. amoon na say doom te yow doo xam doo ko xam. soo ko ba demee ba bu demee merloo nag ba def ko loo ko war def nag. ma mm-hmm. gis nit ku am xaalis dëkk-dëkk alal la muy tasaaroo. rab moo koy def day tasaare alal ji parce que. day fiir ka ni. Mm-hmm. yow tegoo ko place am te boo fi génnee àdduna. Mm-hmm. comme moom mënul dondu. comme mënul dondu na nga la yàqal. yàqal parce que moom mën a nekk nit ñu naan sama diw moom a jur rab la. dëgg la bokkul ci ndonal li. Mm. amul lu jeex ci àdduna parce que kullu nafsin zaa'iqatul mawt kullu man alayhaa faan wa yabqaa wajhu rabbika zil garab yeeg ñoom di jëb di jaay mu ne kullu man alayhaa faan wa yabqaa wajhu rabbika zil jalaali wal ikraam lépp sax ci kaw suuf day dem comme lépp day dem nag feebar bi dañu feebar bi ñun mais dama ne gis ni nga ndaas soo gëmee yàlla yéene woo kenn lu bon sa xol bii ni nga ras ko ba mu set di jaamu yàlla lijjanti woo lenn yi doomu adama duggoo si jëw duggoo ci tappal duggoo ci fen billahi lazi laa ilaha illa doo feebar feebar bi parce que yàlla parce que man kaana lillahi kaana laahu law hmm. ku nekkal yàlla mu nekkal ku ko nekkalul amul sew soxla mais yow da nga nekkal yàlla pare yàlla di la teg coo yenn coono yi hmm. ko def nit ñi dañuy wax rek feebar feebar bi daal su dëgg nga bëgg a dégg terewul ku bëgg def say activité nga dem defi ko ku war a moytu nga moytu mais nag mais nag moytu yàlla moo gën moytu feebar man moytu mu feebar maa ngi def samay activité maa ngi faj maa ngi réglé ñu may war a réglé parce que tey feebar bi rey na leneen loo xam ne bokkut ak na feebar parce que nit dana cancer wala mu nangam sax du ñemetee dem hôpital pour faju hmm. parce que yaakaar na bu demee rek ñu ne ko corona nga hmm. am na feebar yu gën a nekk pur ay cancer ay jabet si biir ñaata ñaata la ñu rayal kenn xamu ko ah ay ngas ay kos-kosa yooyu feebar yu yàgg yooyu noonu ay choléra yooyu yëpp jaar na fi rey ay centaine de millions nit voilà te kon kon te terewuñu woon a julli terewuñu woon a or terewuñu woon def lañu war a def. Hmm. xool ne kooru ren gi xoolal xoolal ñu yaakaaroon lay métti. waaw bokk na ci koor yi dàq presque. parce que yàlla am na yoo xam hmm. laa dara wala dara daf ne bul lor te bul nangu ko la lor. Hmm. moom moo ñuy wax loolu est-ce que danañu lor. duñu lor te wala xadd karab naa ba ni aadama wa amal naa fi bari wal ba yàlla mooy lépp lu mu bind doomu aadama laa ci gën a bëgg mais nit nag ndaas xanaa yow miy jigéen lu lu am ci àdduna sa jëkkër moo la ko gënal. loo bëg sa jëkkër bu pare di ñaan di ñaan yàlla mu am coono boo xam ne du mën a génnati néegam. Hmm. yàlla nag du bëgg doomu aadama ba pare di ko teg coono boo xam ne du ko mën a jaamooti. Hmm. mën ta nekk. mën ta nekk moom mën ta nekk daanaka Cheikh Tidiane nag. temps bi jeex hmm. a tàq nag looy tàggatoo askan di nuyu mbokk téléspectateur yëpp. di nuyu waa internet yëpp. di leen xamal ne fii ci géejawaay la amoo kaat ma am Jaara bu ngeen ñëwee da ngeen fekk jaam si tuuti su xeebu comme a ko sama maam waxee woon xaalal ubaydul kawlaxi muhammad salim abdullahi woowa yaxmat jaam si tuuti su xeebu laa soo xam ne soxlaa jaam ñi rek mu am na ko aajoom nar a faju yàlla nañ jëflante ko sa aajo nar a faju yàlla boo ma xam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh